ndox mooy tax nit ki dund ndox ci boppam moo soxal askan wi nekk na sax jafe-jafe naam ndax jamono ji gis ko daal ci yenn ci ay bërëb jafe-jafe la bu fekkee ne ndox amul nit ki ci boppam moo mënta nekk wàllu sax exister kon tamit dund ba ca war du ko daal di am nonte sax ay junni junni sénégalais ñoom ci boppam amuñu accès ci wàllum ndox ndox mu nga xam ne ndox mu baax la wala sax ndox mu neex waaye ñoom jamono jii ñu nga ca teen ya ak jukki ñu nga ca forage ya ñoom daanaka ña ngi ca dex ya bari ñoo nga xam ne dañuy dox ak seen i tànk ay junni julli kilomètre am ñoo xam ne sax dañuy war mbaam wala ay sareet daal di wërali ndox kon loolu métti na ci métti goo nga xam ne sax daanaka seen dund dañ koy méngaleeg dund ko wér yaan loolu nag boo demee ci àll bi sax la gën a laal ñi nga xam ñooy baykat yi wala yor wàllum càmm gi ñoom daanaka dund gu métti moo xam ne ngir rek gis dox jafe-jafe la ñi nga xam ne tamit ñoo dëkk sax fii ci ndakaaru wala ñoo xam ne tamit ñoo wër fii ci banlieue bi daanaka ñoom ñëpp ñu ngi yëkk seen kàdd ak a yuuxu wàllu foo ko takk daal weesu na ko ndax ay semaine la ñu toog wala ay fani fan ay guddi lu bëree bëri ci ñoom duñu nelaw ndax jamono ji tak moom wàllum ndox moom nekk na jafe-jafe dëgg ndox mi manqué na waaye askan wi namit ñoom dañoo mar lool ba sax dañoo mujjee loof kon ñàkkum ndox moo xam ne kat métti na ba loolee kat nekk na gravité boo nga xam ne moo laal askan wi ba laal koom gi kon ci nga xam ne kat mooy toska rek alam bi loolee jar na bàyyi xel bàyyi xel goo xam ne ci ni ñuy tabaxee wala sax ni ñuy dëkkee ak laaj bu bare bi nga xam ne ñu ngi koy laaj ci ñu bari wàllum ndox kon yaxanaat gi mooy illa gi waaye tamit di bañ a yàq ndox ndax boo demee ci école yi ci université yi ak fi nga xam ne kat mooy ci mbedd mi wala foo xam ay lieu privé la ñu bare bëri dañu yàq ndox rek waaye ñoo xam ne kat daj ko jafe-jafe la waaye itam ngir yàlla ñi nga xam ne ñoo ko am mën nañ koo yaxanal ndax dafa mel ni kat amul benn politique boo xam ne baax na lool ngir ñi nga xam ne ñoo ñàkkum ndox mën koo am kon dafa delluwaat ci sax jafe-jafe waaye wàllum feebar yu nga xam ne day am ak mbas mi nga xam ne kat ci lañ jóge wàllum ndox dafa mel ni daal saa su ne ñu ngi koy waxtaanee waaye amuñ ci saafara kon tamit naam denrée la waaye développement ci wàllum social ci wàllum culture ci wàllum koom daf cee delluwaat ndax ndox moom da cee am partie bu am solo kon tam fexe ba askan wi am ko ci lu doy mën ko yaxanal loolu daal mooy wax ji